yoo xam ne aujourd'hui mu neex mu naqare ils seront à la retraite politique après le 17 lu ñu fay wut wutuñu fa dara. c'est-à-dire xalifa mais du logique politique. ci wàllu politique moom. xool du logique politique du logique idéologique du logique programmatique. kon seen ànd bi intérêt ko law. et surtout le pur encore qu'est-ce que le pur fait dans une coalition une intercoalition où il y a Macky a co Macky Sall a emprisonné deux de mes amis Massata ak Mamadou Niang. imaginez demain ñu ne waa PUR ñu ngi taxaw ci au côté de Macky pour pour pour battre campagne quest que ça va faire devant les gens. Ouais. alors que quand on parle du PUR c'est d'abord l'éthique PUR pour man éthique la d'abord PUR avant muy nekk dara éthique la. ndax ndax ki nga xam ne moo ko jiite. est-ce que du dañoo mer rek mere tamit. parce que non non c'est-à-dire. mën na ne xool man man jàpp naa ne bu la neexee sax ñu ne bedd nañ Pastef mais tey xam lu ma doon lu ma doon lu ma doon d'accord ñu ne PUR. ak sax euh, comment dirais-je Déthié ak ñoom Anta Babacar ñooñu mën nañu ànd mais pas avec Taxawu Sénégal qui s'est accointé bien sûr avec Macky Sall mais pas s'allier avec Amadou Ba bi nga xam ne yow pendant douze ans moom nga combattre ba pare ñoom ñu jël seen régime jàpp say député tëj leen injustement illégalement léegi yow ban logique politique moo war a tax tey nga ànd ak ñoom man mën nga bañ ànd ak Pastef parce que ànd ak Pastef c'est pas une nécessité mais le, le PUR aurait pu avoir sa propre coalition dirigée par des gens du PUR te wallaay xamul lu ci gën a métti mooy gis nga coalition bi la fa am ak la fay am ak néew ci ay nit PUR ko fa nar indi ba pare il risque de ne pas en bénéficier PUR leen ëpp ay nit PUR dina fa indi ay député mais PUR naru ci jariñu parce que PUR n'est pas tête de ba pare aussi nekkuñu deuxième sur la liste ñoom troisième sur la liste lañ nekk c'est un risque pour Cheikh Tidiane Youm le PUR aurait pu analyser ça man jàpp naa ne ñoom bu ñu demaloon seen bopp seen coalition bopp man na ñoo am ay députés yu bari mais fii ñu dugg. doxul non yàqal dina leen yàqal lu bari. alors ci ci ci coalition yi man ma gis euh, Pastef moom mu dem ak bannière boppam waaye bi ñu génnee keroog list bi. donc ma gis ci ñu bëri ñu ci nekk euh, am na ci ñaar ba ñett ñoo xam bi ma leen gisee bon ça mérite ñu analyser ko <laughs> ku mel ni Cheikh Bara Ndiaye ku mel ni Amy Dia ku mel ni Maymouna Bousso noo koy analyser surtout Amy Dia oui mais Amy Dia c'est d'abord la constance Amy Dia c'est quelqu'un qui a fait la prison sauvagement sauvagement j'ai dit terroriste lañ ko waxoon waaw moom la sauvagement seulement à cause de son engagement politique kooku tey bu ñu ko defee sur la liste pour man cest à lu yoon la du récompense de mais yoon la genre amidia yi ñoom dem assemblée nationale. parce que dañu nekk ay nit ñu dogg man ami lu ma jot ko waxtaan wax ak moom lu ak néew xam naa ban genre nit la. Mhm. may mun a busu ñëpp xam nañ son degré d' engagement politique. fii les gens nit ñi toog nañ ndeysaan may mun a nommé et cetera may mun a may mun a may mun terewul may mun a amul loo xam ne tax na mu fléchir dans sa constance politique. mu toog këram jàpp dignité am. non wax wax non non de ba pare boole ci sax toujours di fësal son engagement politique parce que moom li mu gëm dara mënu ko ci dindi. Mhm. et je suis sûr et certain qu'elle sera une excellente députée parce que waxuma ay teesante nii nii de mais moom si wàllu boppam. elle a des idées daf voilà loolu mooy wax bi xam na li muy wax ku mu jàkkaar loolu débat nga daw Cheikh Bara Ndiaye moom je crois que vraiment sa pertinence intellectuelle moom foog da nga koy laaj site yi nga xamante ne ñoo koy xëccoo chaque jour parce que su fekkoon ne du quelqu'un qui n'a pas qui n'avait pas d'idée je crois que Cheikh Bara il ne serait pas gars duñ ko xëccoo à droite et à gauche parce que xam nañ vraiment la valeur intellectuelle de Cheikh Bara Ndiaye et c'est man j'aurais aimé voir quelqu'un comme Sandiou à l'Assemblée nationale. ah bon Sandiou oui mais. mais nag yow xanaa doo xanaa doo baax moo ko mais Sandiou je maa ngi lay nuyu Assane Mesere. waaw Assane sama waaj non moom moom parce que daf may sànni ay xeer. voilà mais Soyibu ak ak ak <laughs> moom moom moom waroon leen yóbbu. Assane nationale. donc pour dire tout simplement que. Hmm. mais cocktail bi kon se bien fait. ah oui te xam nga lu ci neex mooy coalition yëpp ñu ngi toj chaque jour nga dégg ñu ne. ku ah. nga dégg ku ñu investir ba pare mu ne ah. bàyyi na man dégg naa ñoo xam te tey ak ñoo xam investir ñu ñu gedd waaw mais mais mais man dégguma ko fii no bi ci gën a graaw sax mooy prends par kàdd le cas de moom moo jiite woon liste départementale bu Amadou Ba à Thiès. Hmm. bàyyi na nee na du trahir Macky. bàyyi na te pourtant moo yor budget liste départementale bi donc pour dire tout simplement que coalition yu bëri ñu ngi toj regarde ce qui se passe au PDS PDS moom c'est complètement fracturé PR euh, rp xam nga nu mu tuddati PRP bu Déthié moom presque nit desatu fa taxaw Dakar je n'en parle même pas lan moo des ci coalition yi boo bon maintenant am na ci mouvement yoo xam moom Sénégal l'ombre d'eux-mêmes donc ñooñu moom du leen sax tudd. mais nag ni mu amee ñuy gedd noonu laa gisee tamit ñu ñu xooma dañuy buruxlu. ay transhumance maa ngi koy jot a dégg parce que ñoo xam te ni présidentielle bu yàggul bii lu ne yàq nañ ko fi waaw mais d'accord mais xam nga xam nga xam nga xam nga ma dégg ñu naan ñu ngi def clin d'œil non non xam nga ñooñu damay cité de mais jibi mel ni Mame Diarra Fam waaw mais ñooñu ils ont appelé moom moom nee moom dañoo war a sanctionner régime bi ca Touba waaw mais Bara Dolly moom ça se comprend parce que Bara il a voulu être sur les listes de Pastef waa Pastef yi il est neuvième sur la liste mais xam na ne sur la liste proportionnelle ñoom du ñoom neuf députés ça moom c'est clair. mais moom bërki démb. waaw doon wax ne moom Ousmane Sonko la ànd. waaw non moom laa la wax non en fait Baara moom il faut le comprendre. finalement comprendre. non non c'est-à-dire xool bu la waxee ne jibi lii bleu na bu subaa mu ne la non dafa weex nga ñëwaat suba gi mu ne la non dafa bleuwaat donc moom il analyse en fonction de ses postures politiques la seule liste tey boo déggul coow. ou bien ay cascade de démission c'est le Pastef xam na ma war a loolu. mooy la lu ko tax. parce que on a donné la parole à la base on a dit démocratiquement faites vos propositions dans les bases su ngeen dégguwul seen biir maintenant vous laissez au parti le soin de trancher et c'est ce modèle là qui a été fait soo demee Pastef pratiquement déggoo fa benn wax. da gis sax koo xam ne da mu wóor na ne kii bëggoon na ko ko investir mu ne je n'ai pas été investi mais il faut soutenir le projet gis nga maturité politique boobu am ci waa Pastef fii c'est-à-dire lu jar jàngalaat la. Mhm. parce que en fait nit ñi li nga xam ne moo doon xew ci yeneen parti te mu ngi fekkoon ni di xew ba léegi investir ñu ma mer naa génn naa j'appelle au vote sanction. déedéet mhm. mais discipline de parti de femme. te c'est ça que l'on remarque aujourd'hui chez les patriotes. Mmh. waaw donc ñoom gis nga législative yi ñuy wax ni chaque fois damay dégg di ñoon waaw coalition yi et mais les gens doivent se rendre compte ci li ma wax nii rek léegi nii que ne coalition yi trou yi moo fi nekk. trou moo fi nekk. une coalition boo xam ne tu ne peux être présent tu ne peux être présente que sur seize départements sur les cinquante quatre kooku ji mënul tiital kenn. <laughs> la coalition même du pouvoir nga xam ne ñoom ils ne sont que sur trente six. département ñooñu mun ñu tiital kenn peut-être ki leen mën a kii kiiyal mooy ki nga xam ne moom jàpp jéem na ba am 48 te kooka fi ñu toll nii démission yaa ngi koy bëgg a daj. alors donc vraiment il faut que nit ñi que les gens cessent quoi de de franchement de nous de nous tympaniser quoi. de nous tympaniser alors euh, la fin de l'émission mais mais en attendant ma ziar leen bu baax.